moo tax yàlla moom moom nguur joxe na ko nee na yaddullaahi fawqa aydihim loxo bi yàlla bi mu ngi ci seen kaw loxo yi xam nga bi ñuy sànni carte léegi dañuy teg kees yi léegi ñu ne majorité bi lañ soxla loxo yu bëri yi fañ nekk yàlla jël loxoom ba teg ci loolu mooy yaddullaahi am na ñu ko firee kàttan loxo wala kàttan yépp maanaa la rek waaw yàlla kattanam li wala loxoom bi mu ngi ko teg ci seen kaw loxo yi yéen majorité bi loolu moo tax mu jël complète bi solal ko diw sàngam na ko yow la loxo bu loxo yooyu dajee yàlla jël loxoom ba teg ci yow ndax mënati nga koo rocc yow xanaa déggul alquran yaddullaahi loxo bi yàlla bi ñu ne ah mu ne fawqa aydihim ba ngeen dajalee seen loxo yi ba ne diw lañ sànnil yàlla jël loxoom bu rëy ba ne ko bépp ci seen kaw loxo yi ku ko mën a rocceeti xanaa dof dof rek hmm? loxo yàlla bi su fekkee xamula ko ma misaalal la ko ci alquran loxoob yàlla bi yàlla mu ne wal ardu jamian qabdatuhu yowma alqiyaamati wa samawaatu madwiyatun bi yamini mu ne suuf si bisa ngee ñëw dama koy dank yàlla mu ne suuf si daf koy dank comme yow muy dank yow mu amee benn dalasi ci sa loxo bi da ko dank hmm? mu ne asamaan si dama koy leem téye ko comme yow ma leem sa sa jaada téye ko xanaa kon loxo boobu rëy na seetlu la ko suuf si ñi nekk suuf si yàlla mu ne dama koy dank benn dankil la ci man rek benn dank bu ndaw nii dama koy téye ci sama ténqal loxo rek mooñ sama loxo yi dootoo ko gisati moom suuf si bu dee bu dee asamaan si la dama koy leem comme yow muy leem sa sa jaada yu ndaw yi noonu laa koy leemee xanaa loxo boobu rëy na loolu alxuraan la loxo boobu nag la yàlla wax ne moom laa jël na ko bépp ci seen kaw loxo yu mag ya ngeen daj seen loxo yu ndaw ya ngeen dajale woon di sànni per yu tuuti yi ba ngeen amee majorité sama loxo bi laa jël teg ko ci seen kaw loxo yi kuy rëccati wala ngay genn kon wat ci waxtana ngagana yi rek waxtana xel yi rek pour meuna delu wat ci nité manan a dogal yi suko defé ñun ñom ñu meuna a ko <coughs> wéddi dogal nak lég lég yow man nga ci sonné way nit ñi ñom danaka dar du len ci hokk ndax dañuy wax bu yalla namé amal dara lég lég mu reud ne diw sangam la nga ñëw ne déedéet du diw nga jéem a far nga far rëdd wa mu rëddaat ne diw la nga ne déedéet du diw mu delsiwaat far la yow balaa moo rëddaat beneen yoon yoonu ñetteeli balaa mu koy rëdd daf lay far yow jakk moo tax euh, waxtaan ak xel yi baax na de jëfandikoo xel yi baax na de hmm. yalla may nañu jamm yalla nañu yalla yokal jamm bokki kon kon bi yalla mo amé nguur mo koy euh ñun ñëpp bok nañ ko xam té ñun ñëpp bok nañ ko dégg complète la solo na ko neex waye Gambie nak mo win ndax bu loxob yalla bi moy fal kàttanal yalla li moy fal yàlla fal na diw sàngam waaye yow diw sàngam yàlla la tegee saayit waaye bàyyiwul la de bàyyiwul la de yaa ngee lekk yaa ngee naan yaa ngee nelaw di eew yaa ngee doxi sa soxla yi yaa ngi am mbooloo mu nekk ci sa gannaaw yàlla bàyyiwul la de boo bàyyi woon xel xam ne mu ngi la deseel de su boobaa danga mën a muñ kon yàlla def na li ko neex ñu ñëpp ñu bokk ci sant yàlla bu ko defee mu yokkal ñu mu yokkal ñu dañ bàyyi xel loolu bu baax mangook mbokk yi ñi ngi ndokkeel président Baro ñu ngi koy ndokkeel ndax loolu moo war lislaam ak ñooñ lislaam moo war mboolem doomi Gambia parce que bi bi muy bi jamono bi ñuy waxtaan ci campagne bi di waxtaan ci jàmmi Gambie ak naka la nit ñi war a def ak téye làmmeñ yi ci wax yu ñaaw yi kenn mos ta dégg ñu tudd président Barrow ndax mos naa am ngoog kon su tax ñu tudd ko tey yàlla ne nañ ko tudd <laughs> ñun ci defuñ ci dara yàlla ne nañ ko tudd rek nañ ko tudd parce que ñun tam dañoo bëgg ànd ak dogali yàlla bi di ko nangu ndax ñi mën a noppale ko waaw buñ jox gannaaw dogali yàlla bi moom ñaanuñ ko yàlla ma ngoog moo tax ñi ndokkeel moo ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ko doon jàppale di ndokkeel Gambie yëpp ñi ñàkk itam ñi leen di ndokkeel ñàkkuñ dara ñàkkuñ dara te wallaahi ku ci xëy sëpp sa tànk yi mu mën a dox nga yëkkati loxo yi mu dox nga xool gis nga wax mën a wax nga lekk ba suur xam nga ne yàlla deseelu la dara boo fi nekkee di jàmbatu itam da ngaa dese da ngaa dese xam rek waaye boo xamoon doo jàmbatu kon ñi ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla nag ndax ku ne jox leen ma danaa ko amee amee bu rafet. so deful li nga santane lima ma xeyna yalla na ya- la nature rek waaye yaakaar naa bëgg ngaa liggéey man loolu la japp ñepp ñi doon laaj ku ci jotoon rek di nga liggey kon yow la yalla jox liñ japp moy bëgg nga liggey yalla na la yalla dimbalé nga mëna liggey yalla la yalla may ndam ba ñepp ne am nga ndam ya kep ku and ak yow ndax yow sa ndam moy ndami Gambia waaw yëngatu ci l'islam yépp xam nañ ne. islaam léegi la waaye bu njëkkoon xutba yi sax dañ ciy ñaanal njiiti réew xutba yi jamono yunti yàlla ma jamono saaba yi xutba yi sax dañ ciy ñaanalaale njiiti réew yi lu tax parce que boo suñ njiiti réew yi meluñ ni mel léegi sooy xutba boo ko ñaanalee ñu ne héehée diw kay ci MPP la bokk su boobaa ñi doon julli si jumaa yi am na ñoo xam ne jaral na leen ñàkkaa julli si sax lii moo tax sax nit ñi wàññi ko waaye bu njëkkoon même imaam même imaam dañuy dañuy dañuy dañuy la njiiti réew yi ndax boba dañuy japp ne imam bi ak njiiti rew ño bok enu enu dekk bi mënu ñu xajalé ko buñ xajalé ko dara du baax ki mo amé mbirum aada bi ki mo amé mbirum diine ci li nak moo tax ñi ngi koy ndokkel te ñi ngi koy ñaanal bu wut mo fi tek bopam yalla ko def jaarale ko ci doomi gambie yi man loolu mënuma ci dara nangu rek yalla nako yalla may ndam katanal ko mu liggey ba nga xamne doomi gambie yeb yegne ah budé dee lañ ko lajoon dé xana budé dee ñaar fukk ak bi sa def nako su fekké man ta def téeméer bi lolu ci kattanal yalla lay jare ak ci gor ya yalla nako ko yalla defal mango bokk yi xam ngeen lan moy ponki ponki gëm yalla arkaanul iman xam ngeen moy lan pile yi enu gëm yalla moy gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm yonentu yi gëm bis pénc gëm dogal bu neex bu naqari juróom juróom benn yii la gëm yàlla mooy lan imaanu billaahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil aaxiri wa qadarihi gëm yàlla danga koy wax ci làmmiñ rek ñii xaar nag ba xam nan la bi mel nga gëm malaayikaam yi gëm ne mu ngi am ay mbindeef yi ñu tuddee malaayika nga gëm mboolem yonent yi jógee asamaan nga gëm mboolem téere yuñ walé nga gëm ne bis dana ñew ñi ak yalla muy juroom nga gëm nag dogal sëriñ bi nak daan na wax ne gëm yii yépp gëm dogal ci gëna jëfé jafe lool moma ko tax a isidi sëriñ bi daan na wax ne gëm yépp gëm bi mo ci gëna jëfé jafe lan gëm dogal gëm yalla gëm na yalla gëm na yalla rek ci mbedd bi kan mo gëmul yalla gëm na yalla gëm naa malaayka yi malaayka am na gëm naa téere yi alquran a ngi ni ah tawraat bible baa ngi ni gëm naa tawraat gëm naa gëm naa gëm naa yonent yi yonent yàlla muhammadu yonent yàlla insa gëm naa ko yonent yàlla uh, Moussa uh, Ibrahima waaw gëm naa ne yàlla dana dajeeg nit ñi waaw dana fay jaam ñi waaye yàlla dogal nga nangu <laughs> loolu da moo jëfe nag bëri na koo xam ne mooy ubbi jumaa ja wala moo fay njëkk wala amna place buñ ko xamé ci juma ja waaye bu yalla dogalé rek mu bañ amna ko xamné lim yoré muñ ci dimbalanté dimbalanteeg jaami yàlla yi amna ko xamné dem na màkk ay yoon amna ko xamné dana or wéru koor amna ko xamné mu ngay nafilé waye bu yalla dogalé mu bañ gam yalla dogo dogalab yalla nang ko yombut de mata ma ngi sama bop di o ñepp ñu doon ut né nañ baña a caalit yenn yi la ba paré di sa bop problème nañ ko daw hmm. kon gëm dogali yàlla mooy isi euh, raaxa fil xal bi no naflaayu xol waaw ar raaxatu fil xal bi naflaayu xol boo ko bëggee xol bu féex xel moo dal jëmm ji jaayu di sant foo toll di yëg yàlla loolu ku nangu dogal moo ko man ku nangu dogal moo ko man kon nañ bokk ñu sant borom bi tabaaraka wa bokk yi buñ gëmé dogal ba paré lu def moy sant yalla rek sant yalla rek xam nga iblis euh, opposition yi yonent yalla muhammadu la ak mbolam yonent yi iblis waye mom itam du jëm jo xam nga egg laal de waaw mom da fe nek tam mu wóor ne mu ngi fi waye mom itam mbubula rek complet léeg-léeg nga gis nit ko xam sa mo sol complet tam iblis momu boko ko seetloo kero bim mu problem problème ak yalla ba ñàkk teggiin ba yàlla dàq ko daf ko ne yàlla yow sama borom dama bëggoon nga yokk ma pawa doole laa bëggoon nga yokk ma doole soo ma yokkee doole ba ma am doole ma dund gudd fan lool yàlla na ko